jox ma sama téléphone. pour que Barthélémy nekk meeru Ndakaaru. xam ngeen lu tax xam ngeen du ma ci guddal de. ndax du ko tagg. ndax dama xam jikkoom tuuti. boo ko taggee rek mu sax xilaaf. moo tax du ma bëri. waaye li ma li ñu sonn ci. mooy benn. benn. Barthélemy Dias du koo xam ne dangay ngay ànd ak moom xare jot nga wëlbatiku doo ko gis. te man nag loolu laa gëm ñaareel bi foofu lay daanele kenn du ko jox mairie mu jaay ko Macky Sall dina ko jël en tant dina ko yor en tant ba 2024 ngeen waa ji ba biir bu weex taal ñu ne ko rëpp mooy yor ko mu continuer ko yor en tant que mu continuer ko yor en tant bokk ak ñiy defar réew mi soppi réew mi moo tax ma ne Barthélémy Dias maire de Dakar asalaamaaleykum Maktoum daraan wax ne réew mi xaw ma lu fi am waaye justice moom amu fi moom Serigne Cheikh bu dem ba waat ko daf ne dafa tiit ndaxte réew mi justice amu fi et la première des violences démarre par l'injustice le Sénégal depuis da ngeen justice yàlla muy Macky Sall moom mooy borom bis ki nga xam ne moom mooy borom Dakar ki nga xam ne bis bi ñu jàppee Khalifa Ababacar Sall ngoram mayu ko mu fanaani këram da koo fekk ji ci kaso ba ki nga xam ne fullaam faydaam tax na ba yenn naafeq yi bokkoo dëkkal fu mu dëkkul damay fàttali nii kii nga xam ni moom la ñuy wooyee le chouchou des Dakarois nga xam ni askanu Ndakaaru ñoo ko tànn ni ko yow nga damay ñaan mbooloo mi fi teew ñu taalal ma torche na fi leen taalal leen ma torche dama bëgg asiko yi ma may nag di ngeen ma may jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf di ngeen may ma lire benn discours d'abord ci tubaab en français c'est pour c'est pour la presse étrangère qui est là parmi nous c'est extrêmement important pour nous cette élection est le premier tour de l'élection présidentielle de 2024. Que le monde sache que le Sénégal a tourné le dos à ce régime liberticide et dictatorial. moo mais may sàkku ci yéen ma d'abord ay Kadou, ci Nasaran, ensuite tëgg ko ci wolof léppee bu Macky dee na nañ ko du loolu moom ngeen wax. le 23 janvier 2022 mooy doon sarax si incha allah. wante nag waaw si moom yéen na ngeen ci dugal seen loxo bu baax a baax. wante ci yàlla àndee tamit incha allah mois de juin ci législative yi mooy nekk le quarantième jour incha allah. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer d'abord une pensée pieuse à tous ces martyrs de la démocratie, tombés sur le champ d'honneur lors des événements regrettables du mois de mars 2021. Je voudrais rappeler que si nous sommes ici aujourd'hui présents, c'est parce qu'il y a eu 14 Sénégalais qui ont accepté de sacrifier leur vie au nom de la démocratie. Il y a eu des centaines de Sénégalais à travers tout le Sénégal qui ont accepté de verser leur sang pour la dignité de la démocratie sénégalaise. Et à ce titre, j'aimerais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de ces combattants, de ces patriotes, de ces dignes fils de la nation qui aujourd'hui nous permettent de nous mettre ici pour que la démocratie sénégalaise puisse respirer. Mesdames, Messieurs, membres de la conférence des leaders de Yéwi Askanui. Mesdames, Messieurs, les têtes de liste investies dans les 19 communes du département de Dakar. Mesdames, Messieurs, les candidats investis sur la liste Yéwi Askanui de la ville de Dakar. Mesdames, Messieurs, les candidats investis sur les listes Yewi dans toutes les 19 communes de Dakar. À nos amis du plateau, à nos amis de Gorée, à nos amis de la Médina, à nos amis du Point E, à nos amis de Fas Koloban à nos amis des HLM, à nos amis de Biscuiterie, à nos amis de Grand Dakar, à nos amis de Depel les Castor, à nos amis de Liberté, à nos amis de Mermo Sacré-Cœur, à nos amis de Anne Belair, à ceux de Grand à ceux de la Patois, à ceux de Yoff, à ceux de Wakam, de Nord, de Parcel Asseni et de Camberen, à nos chers invités à vos rangs, titres et grattes, chers Dakaroises, chers Dakarois, c'est avec un insigne honneur que je m'adresse à vous en ce jour marquant mon investiture comme candidat de notre grande coalition Yéwi Askanwi, à la ville de Dakar. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude et mon infinie reconnaissance à tous les leaders de à Askanwi, ici présents pour la confiance placée à ma modeste personne. Ainsi, je m'engage avec vous jeunes, femmes, adultes, à relever ce défi collectif pour le triomphe de notre coalition au soir du 23 janvier 2022. Cela ne sera possible qu'avec l'engagement de chacune et de chacun d'entre nous. Chaque voix compte. Ne négligeons personne. Soyons ouverts, soyons surtout généreux envers tous nos concitoyens et restons attentifs à leurs préoccupations. Chers camarades, le temps des investitures est passé. Choisir ne signifie pas exclure. Le temps de l'unité et de la cohésion a sonné. Évitons la division et travaillons ensemble dans la même direction pour l'atteinte de notre objectif essentiel. L'essentiel, c'est gagner dans toutes les 19 communes et surtout de gagner la mairie de la ville de Dakar. Ce qui se joue à travers ces élections, c'est le sort de Dakar qui, depuis 2012, a été combattu via celui qu'il s'était choisi librement. Je veux nommer mon grand frère, mon leader, le grand-mère Khalifa Ababakar Sall. Je m'engage avec vous à amplifier tous les grands projets initiés par Khalifa Ababakar Sall au bénéfice exclusif des Dakarois. Dakaroises, Dakarois, l'heure est grave, mais la gravité de l'heure ne saurait entamer notre engagement et notre détermination à relever le défi de ces élections locales. Les militants de Yewi Askanui, que nous sommes, n'ont pas besoin de tramer un complot. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'accomplir notre devoir de citoyen, Inch'Allah, le 23 janvier, dans la paix la transparence, la sécurité et en toute légitimité. Et de nous permettre de remporter haut la main ces élections locales, Inch'Allah. Dakaroise, Dakarois, il nous faut réinventer Dakar, notre chère ville. Réinventer Dakar, c'est de lui rendre sa dignité de ville capitale ouverte au reste du monde, véritable porte de l'Afrique. Réinventer Dakar, c'est la rendre plus attractive comme ville propre et plus résiliente. Réinventer Dakar, c'est donner une place de premier choix à l'économie numérique et à l'innovation technologique. Réinventer Dakar, c'est rénover nos lycées et collèges et leur doter d'équipements modernes. Réinventer Dakar, c'est adapter nos structures de santé aux besoins des populations. Réinventer Dakar, c'est améliorer le cadre de vie, c'est la modernisation de nos infrastructures sportives pour favoriser l'éclosion de jeunes talents dans tous les sports. Réinventer Dakar, c'est en faire un carrefour culturel où tous les approches innovantes de la gouvernance territoriale dans tous les domaines de compétences évoluent à la ville de Dakar. L'inclusion et la participation seront les traits marquants de cette approche innovante de la gouvernance territoriale. Aucun segment de ces compétences ne sera laissé en rate. Nous nous engageons à nous mettre au service exclusif des Dakaroises et des Dakarois pour leur assurer un bien-être collectif. Nous nous engageons à travailler avec toutes les 19 communes sans aucune coloration politique, car au finish, l'essentiel reste et demeure Dakar et Dakar, c'est vous. Une solidarité articulée avec les 19 communes sera développée dans le cadre de l'intercommunalité. C'est pourquoi j'invite toutes les têtes de liste de notre coalition à aller à la rencontre de nos concitoyens, de les écouter attentivement afin de trouver ensemble les solutions attendues. Chers Dakaroises, chers Dakarois, L'heure de la vérité et du changement, cette heure vient de sonner. La coalition Yewi Askanwi est là pour apporter cette vérité et ce changement, devenu une demande sociale. Avoir cette masse, cette forte mobilisation, ces militants engagés, la victoire est déjà assurée et la peur s'est installée dans l'autre camp. Faites-moi confiance, c'est Faites-moi confiance. Inch'Allah, il n'y aura pas d'élection le 23 janvier 2022. Il y aura une formalité et c'est le maire de Dakar qui nous parle. Votre présence massive est pour moi un témoignage de la plus haute valeur, celle qui donne sa noblesse à l'engagement politique. Je suis conscient de la confiance placée en moi comme de ma responsabilité. J'ai la certitude que si les élections se déroulent normalement, nous allons les remporter haut la main au soir du 23 janvier 2022. Et pour ceux, et pour ceux qui pensent que la démocratie n'a pas le droit de respirer dans ce pays, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire, c'est que vous devez résister. Résistance. Cette échéance est décisive et ses vrais enjeux se situent dans la volonté politique exprimée de lier cette élection à l'avenir du Sénégal. Rappelons-nous de ce qu'un conseiller proche de l'actuel président a eu à dire à Mour. C'est la raison pour laquelle je vous invite à comprendre que ces élections locales, ce n'est rien d'autre que le premier tour de l'élection présidentielle pour ceux qui ne comprennent pas que le troisième mandat n'est pas autorisé au Sénégal. Mais qu'ils sachent qu'on ne leur donnera aucune emprise ni aucune chance sur l'issue du scrutin, pour ne pas dire sur leur volonté manifeste de vouloir tricher. La seule voie pour y arriver, c'est la mobilisation et la détermination pour une victoire éclatante à ces élections. Cette forte mobilisation montre que force reste au peuple et non à l'intimidation. Je prends l'engagement devant cette auguste assemblée, une fois élue, de servir toutes les Dakaroises et tous les Dakarois sans distinction de sexe, de race, de religion, de confrérie, d'ethnie, d'opinion ou d'appartenance politique. Je prends l'engagement, une fois élu, d'être votre, votre serviteur et je serai à l'écoute de vos préoccupations, Inch'Allah. Si je prends ces engagements, c'est parce que je nourris l'envie et la détermination de redonner à notre chère capitale Dakar son lustre d'antan et de mettre fin à cette souffrance qui n'a que trop duré. Dakaroise, Dakarois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous donne la paix, la lucidité et la sérénité pour un Sénégal de démocratie et de prospérité. Vive Dakar, vive la coalition Yéli

waaw mbokk yi ngeen may ma rek ma jéem a ah, ginnaaw ba ñu defee une minute de silence ñu jagleel loolu suñu rakk yi suñu dëkkandoor yi suñu mbokk yi ngeen xam ne ni dañ fi jot ñàkk seen bakken ci événement yu fi amoon ci mois de mars dernier ci atu 2021 dama bëgg wax ci leer ñooñu suñu defuloon lu ñu defoon suñu amuloon taxawaay bu ñu jotoon am ci événement yooyu tey nguuru président Macky Sall du fi organiser élection kon nag ñoom ñu ngi ñaan yàlla na leen yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe yi di ñaan tamit yàlla na yàlla may seen mbokk yi ak seen njaboot yi xolu muñ wante démocratie lu mu soxla dañ koy jox te démocratie ko soxla won parce que amul république fu ay di dëkk ci di démocratie saxufa donc nous ñu ngi leen di nous, ginaaw ba ma nuyo mbolo bu fi ci ci meeting bi mention spéciale

bu ñu investir ci bépp liste Yewwi Askan Wi biir 19 communes u Ndakaaru yi mbokk yi nag tey dam leen di laaj rek parce que man dama bëgg damay laaj rek baa xol yi sedd na damay yi sedd na ah xol yi sedd xol yi sedd na guy kon nak way ngeen ko ba paré say say bu magga a mag mom sul nañ ko déna sul nañ ko bu ci dess nak moy sarax si wax naa ko moy le 23 janvier 2022 na ngeen góorgóorlu ba sen taxaway sen doxalin sen jëfin bu kenn am xel ñaar ci suñu ndam bu ñuy am le 23 janvier 2022 inshallah parce que mom moy nek le premier tour de l'élection présidentielle ginnaaw loolu nag mbokk yi bi dama ci ànd ak mbégte wante xam naa responsabilité bu ngeen ma dénk te su ci yàlla àndee allah dama fas yéene ànd ak yéen doomu Ndakaaru yi ànd suma yaay yi ànd suma papa yi ànd suma mag yi ànd suma rakk yi suma mbokk suma dëkkandoor yi ñu bokk benn lay bokk benn bàyyi liggéeyal askanu Dakar liggéeyal Dakar liggéeyal ëllëgu Dakar ngeen may ma nag ma def mention spéciale suma mag suma xarit Khalifa Ababacar Sall xeex nañ ko dëkkaloon nañ ko fu mu dëkkul yàq nañ liggéey ba mu commencé woon fii di Dakar wante nag saay-saay mën na bañ a wax dëgg. man na yàq xel mën na yàq xalaat mën na yàq xol wante xalifa Khalifa Ababacar Sall fu mu tegoon tànkam fa laa fas yéene teg suma tànk incha allah kon nag na ngeen xam lépp lu ngeen xam ne ni état moo ñu ko may ci ay sañ mooy lu ñuy woowee compétence transférée mu toll ci juróom-ñeenti sañsañ bu ñu état bi dénk damaa ci fas yéene ànd ci ak yéen ci fulla ak ci fayda liggéeyal Dakar. Dakar nekk dëkk bu set Dakar nekk dëkk bu ngeen xam ne ni affaire daf fiy am xéwal daf fiy am naataange daf fiy am te jàmm tamit daf fiy am parce que jàmm ci lépp xet. bugguma guddal parce que maa ngi gis auto police yi maa ngi di seen te xam naa ne autorisation bi dañu ko may ba vingt heures wante mbokk yi tooñ baaxul wante lenn dama mën naa leen ko wax danga naa gars yi dañ ma tere dañ ma tere def dox mbokk. ñoom ñoom ñoom nee nañu ñoom nee nañu dañ may tere def dox mbokk dama ne dama ne tooñ baaxul comme nee nañu coalition Yewwi Askan Wi coalition bu yee fitna la te wax yooyu dëppul ak dëkk yéen ñëpp dégg ngeen leen Ousmane Sonko wax lu Ousmane Sonko wax moom laa wax lu Ousmane Sonko wax moom la wax lu Ousmane Sonko wax moom ngeen wax ngeen tamit suñ ci eggee suñ ci eggee mbokk dama ne semaine bii suñ ci duggee incha allah dox mbokk bi dañ koy soppi mu nekk jokkoo ak mbokk yi kon nag dañu ne man nangatuma doxantu ci mbedd yi kon nag di ngeen ma gis ci marché yi di ngeen ma gis ci jumaa yi di ngeen ma gis ci église yi di ngeen ma gis ci université yi di ngeen ma gis ci grand dama ne na ngeen taxaw tem ngeen ànd ci ak fulla ngeen ànd ci ak fayda ngeen ànd ci ci ak jom dama ne mbokk yi mbokk yi mbokk yi fu may daanelee ginnaaw xol yi na guy dama ne guy fu may daanelee mbokk yi fu may daanelee mbokk yi mooy élection yi ma ne élection yi mbokk yi may leen ma rek ma daaneel ma leen ko may leen dama ne élection yi mbokk yi wolof ñay nee na kundoo min rey sa maam so gisee du ñuul da ngay daw noonu ñun dañu demoon élection 2017 élection législative député ba 11 h et demi ci goudi ñun ñoo gagné won ñom 3h du matin ñu dal di génne ay yeneen chiffres ne ñom ñoo gagné foofu laay daanale nag dama ne pesum karam borom a koy fajal boppam dama ne 23 janvier 2022 su ngeen demee ba voter ba ñu tëj bureau de vote ci 6 heures yéen ñëpp na ngeen ñëw suñu quartier général lu ngeen xam ne ni mooy suñu wareef ak suñu warugal dinañ ci ànd ak yéen ci fulla ak ci fayda dem dugg ci mairie de Dakar yëkkati Dakar teg ko ci teg ko ci loxo Dakar waa yi parce que la vérité mooy lan. Moi, ba Sénégal le Sénégal ba Macky Sall est le premier président de la République du Sénégal qui n'a jamais eu un maire de Dakar dans son parti et dans sa mouvance. La raison pour laquelle, la raison pour laquelle, la raison pour laquelle, c'est parce que wadi tu cuune la te de tële.